xam nga sur le fu Kaolack Carrefour la euh, booy xool dëkk yim wala réew yim frontière dafa bari euh, xeet bu ne dafay jógee ci réewam ñëw te bu ñëwee Kaolack lañ njëkk am comme si que dëkk bu mag soog di ci teg Dakar benn ñaareel ba mooy maanaam euh, xeet yu bari fu ñuy dajee jikko yu bari dajee fa jikko yu bari fu ñu dajee jikko yu bon yi bu ëppee yu baax yi faaw yu bon yi laafaale yu baax yi benn ñaareel ba mooy euh, mooy li may wax toujours rek lépp ci autorité sénégalais yi la parce que benn ñu ñu ci wala ñu dimbale ci ñee ñaar yi moom ci nekk da nga lim sax mais da nga bàyyi lu bari parce que Kaolack li fa dajee moo bari. Mm-hmm. booy xool pencam sañ Bachirou moom sañ Touba mi ngi Kaolack booy xool waa Kaneen ñi ngi Kaolack. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne nijaay lañ ci Cheikh Tidiane Sy Al mm-hmm. booy xool. kër maam Khalifa Niass radiyallahu anhu mooy waajur Sidi Lamine Niass ñëpp xam mi ngi Kaolack booy xool kër Maolana Cheikh Ibrahim Baye Niass mi ngi Kaolack te yooyu yëpp ay këru diine lañ yoo xam ne ni tey foofu état wàccee dana ñëw ci bii ñëw ci bii sañu dem ci bi ba bii mm-hmm. kon loolu fu mu amee état moo war a jëlaat ay responsabilités am xam ne kat lii xewoon 2015 répété répété waat encore nii ñu lakk ci nit ëllëg mën nañoo fekk nit kuy dox kuy wiccaxi loxo yu mel noonu sax ñu def la naka sudut noonu comme li ko góor gi wax te fekk doowoo ko mm-hmm. benn maanaam euh, am na ñoo xam ne dañ koy judduwaale seen deret xaw ma nu ñu koy tubaab yi waxee mooy mooy mooy demee noonu am na ñoo xam ne aussi tamit yarteef lay doon mhm. duñ ko doon ci pratiquer mais dañ koy doon ci wax ak ci ci jëfin ak yooyu mais duñ pratiquer waa ci geste mhm. mais duñ ko waaw mais duñ ko def mhm. mais yooyu yëpp li muy tegtale rek mooy maanaam état bu Sénégal bu ci jëloon mat matukaayam ba mu mat sëkk tey lépp du am état lan la waroon def pour yow bari na parce que tey xam nga néew bi avant ñu koy lakk am na góor ñu dalal ci euh, benn site internet mu koy leeral. Mhm. ne moom yaayu ndaw si bi mu ko ooyee oona sous préfet. Mhm. wax ko man pour man róoru sous moom moom manqué foofu. Mhm. parce que bu ma toon du ko wax ne ko bàyyi leen ba néew bi ñëw ngeen si dogal wala nangam moom lañ dénk kat du kaw la lu ci ëpp mu koy doxal ci lu baax ak lu bon kon buñ ko informé ni mu war a def mooy lan jox ma numéro yaayu waa ñu jox ko numéro yaay waa ji mu contacter ak ñoom ne leen fu néew bi nekk ñu wax ko mu dem récupérer ko yóbbu ko ci margo bi ci glacière ñu glacé ko ba ko fa. ba kañ. ba wax ji sedd. xam kañ ba wax ji seddee ñaata ñaata nit ñooy dee hôpital Malang hôpital Cheikh Ibrahima Niass bu Kaolack ñu xam ne ay góor jigéen lañ pourquoi pas deful noonu pendant une semaine ba wax ji sedd ñu naan néew bi suul nañ ko suuluñ ko ñu defar ko sang ko sang ko boole ko ci néew suul dem suul ko te kenn du ko xam loolu mënoon na nekk. mais d' accord nga ñu suul ko ci armère bi. non c'est-à-dire ñëwaguma ci d' accord ak bañ a d' accord maa ngi ñëw ci. lu mhm. lu état bi war a def waaw ci li def ak mhm. benn parce que man xaw ma bu ma dee xaw ma ci mhm. géej laay dee xaw ma ci jaww xaw ma. kon man maanaam soxorewu ma kenn ñu suul ko ci armel wala ñu bañ ko suul te su ma su doon sama sago sax ñu bokk ci armel yi parce que yàlla moo yor yërmande. dëgg moo yor jéggal mooy jéggal ku ko neex. parce que jëf rek moom moo am solo man amila saalihan fali nafsi lu waaye jëf moom ngay fekk ci Euh, armée la nga jëm wala suuf sa ngay tëdd mais dama ne la maanaam sous préfet moo def erreur foofu benn côté mhm. deuxième côté ay mbokkam ñu def grand franc délit def erreur bu gën a mag loolu parce que boo ñëwee <coughs> boo ñëwee jël néew yóbbu ko Touba maanaam wóoyam jiitu la fa mhm. nga agsi ñu rejeté ko ne la mënuñ ko fi suul mhm. nga dem yóbbu ko ci yeneen armel yoo xam ne mooy armelu Maalum ak yeneen armel yi nekk biir Kaolack foo ko yóbbu ñu rejeté ko ne mënuñ koo nga bàyyi ba guddi nga ànd ak sàppoor ñëw suul ko ci armeeru lew na kon xalaatoo waroon ngaa xalaat ne lii war na ci mën a fekk mm-hmm. parce que pourquoi parce que dangaa dem Touba laaj ndigal ñu may la nga dem nga départ ñu xañ la nga départ nga dem yeneen armée li laaj ndigal ñu xañ la nga départ nga ñëw lew na laajoo ndigal suulal sa bopp li moo indi problème bi du leneen benn ñetteel bi mooy fi may tëjee mooy gis nga mbokk dafa war a suturaal maanaam moroomu mbokkam ak ci lu mu mënti nekk rawatina mu génn àdduna mm-hmm. parce que tey ñoom lañu war a def bu ñu ko defoon lépp du ci am yaayam du ci génn àdduna kee duñ ko ca lakk. da ñuy confirmer loolu. yaayam dafa génn àddina. waaw bien sûr loolu. ay soxna si loolu man jour bi may seetaan vidéo bi dañ koy lakk noonu dama ko ju ju judit la en fait góor jigéen la nangam la xaw loolu voilà yàlla moo xam mais bi ma téemee téléphone bi ñu koy lakk sama ronkañ da doon toq parce que. nit nga aussi. doomu aadama maanaam dafa foor foor boo xam ni. Mhm. xar bi nga yàllal sa bopp sax bu tabaski jotee wala dara pour nga rey ko problème bi mhm. ndax miin bi mu lay miin waxuma laa nag doomu aadama bi yàlla bind mu yoroon xel yor lépp di dox nga génne ko taal ay pneu loolu moom parfaitement raison rafetlu wu ma ko. d'accord alors te voilà soulagé wu ma ci ñu ko am na loo xamante ni aussi xajul sa xol lu metti la gàddu sa néew fu nekk nga dem ak moom bon on n'avait pas la confirmation. Euh, ba ci li ñuy wax ak Ndeye Péta on n'avait pas la confirmation mais mu ñu confirmer ne que. yaay ji da nga am mm-hmm. lien ak yaay ji wala mujj na ñàkk bakkanam moom mën nga wax ak moom wala. non amuma lien boo xam ne maanaam dañuy ah, xamante mais am na lu ñu lu fi jaar. Mm-hmm. te li fi jaar ni ma ko xamee fan ku ñu wax Lamine benn booy bu nekk allo Sénégal ñu baal ma ci kii bi ci jàllale bi. amul problème mm-hmm. dafa dem dafa ma bi information bi amee mën la njëkk a laaj. fekk guddi la ma ko laaj maa ngi téye sama kurus ma yónnee ko benn sketch ma pare ma envoyé ko message na ko waa dégg naa ko de mu ne ma dama bëggoon am information yu leer ma ne ko ah loolu nag moom da lay jaral nga dem ba Kaolack man dama joxe information bu ma xamul mu xëy dem Kaolack ci la jël paa bi bi mu jëlee paa bi retourné. mooy chef de quartier bi mooy de quartier bi. Mhm. bi mu retourné nag ba dugal vidéo bi bi ko seetaanee ci laa xam ne ci la sama xel di ma ne ah, kon yaayi diw mi moo ma woon téléphone. Mhm. on ma jour vendredi. bi ñuy def manifestation F24 bi fii nii moment boobu ma ne ko dama jàpp après bi ma retourné ci la ma oo ci belef rek pour wax ju gàtt comme émission bi dafa kii nii ci la ma xamal ne ma sama doom mi ngi tudd Cheikh Fall ma ne ko waaw mu ne ma dafa tawat waaye nag sa mbokku Kaolack la ñu waxtaan jàmba santé mu xamal ma ne ma sama doom dafa am lu mu gént ma la doon laaj gént gi ba xam mën nga ma cee dimbale ma ne ko bismillah même dafa gént maanaam mu mu yor yàpp xaj boo xam ni yàpp bu xonq la nii xaj buñ fees ba pare mais maa ngi koy xëccoo moom ci buntu néeg bi. moom yaay ji mu ne mu ngi téye ci côté tànk yi moom xale bi mi ngi téye ci côté bopp bi ñu koy xëccoo moom moom. Mhm. mais nag nee na bi ma ko xawee ëpp doole ba xëcc ba yàpp yëpp di bëgg a ñëw ci man dafa màtt ci côté bi ma téye woon ba yàpp bi dagg ba man daanaka daanu naa ba sarvet euh, bi mu tarax laayoo woon sarvet bu bi sax dafa mujj. dafa mujj wadd. léegi nag loolu jaaxal man lool parce que gént gi nee na moom daf koy daf ko jaaxal. waaw daf ma woo comme man ci réseaux yi laa nekk. Hmm. voilà sama numéro dafay tàppi toujours comme noonu la rek. léegi après bi mu waxee loolu ma ne ko ah soo am xalifa de daan na wax ni firi gént ñaar la. Hmm. ñu ne ko waaw mu ne daan wax ne ñeme yàlla lool. Oh wala nga ragal yàlla lool yàlla xamal la. Hmm. ma ne ko loolu nag moom wallaahi wax la ma xaw ma ko wax dëgg na yàlla. léegi da may may ma am ko ma la laajal ma am sama benn rakk papa bu ma laaj bu nekk mbuur ku yàlla may ci firi gént kooku sax euh, bëggul sax ñuy wax ay turam ak yooyu. léegi bi ma ko waxee expliquer ko pare mu ne ma nii ah loolu dee la de dee la ma ne ko dee ci kan. ndeysaan ma dee la ci ki gént. ki ki la ki ngay firil gént gi it mu teewoon yàpp bi la des ci moom ma ne ko waaw mu ne ma jot bakkan it moom bakkanam na caa na caa dem ci la ma mujjee wax sax na ma yaa fi a dëgër fit nag. am na ñoo xam ne bu seen fan matee nga bëgg leen a dimbal da ci ciy topp bul ci ñaan bul ci wax. léegi waxoo ci ñaanoo ci. après bi ma yaay waatee wax naa ko ko nee naa ko ñaanal ko rek danañ ci ñaan baatu danañ ci ñaan la rek. waaye nag wax dëgg ne yàlla <laughs> sama bakkan bi nag bëgg naa ko